su ko defee kon islam continuité googu moo xew ci biir lislaam moo tax suñ ñëwee ci jaamu yàlla yi ci seen bopp benn bu ci jeex rekk beneen dafay dafay duggaat fi ñu toll nii nit ñaa ngi nii ci aj aj gi jeexagul waaye balaa aj gee jeex dana am geneen jaamu yàlla goo xam ne dugg na mooy li ñuy tuddee tubaski mu mel ni fi ñu toll nii sax nit ñi war nañoo commencé di xelaat ci loolu di ko waajal loolu itam su jotee nattu bi nga xam ne dal nañu ci mooy dem nañoo dem a dem ba euh, tobaski euh, mu ngi bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne coltionnise nañ ko waaw dañ ko euh, coltionnise maanaam dañ ko mujj mu nekk aada waaye nekkatul pio pio jaamu yàlla li ko waral mooy jaamu yàlla gune dafa am ay charte charte yooyu feeg yaa ngi koy bàyyi xel mu tudd jaamu yàlla waaye suñu ca suñu ko ca dindee rek indil na suñ bopp problème te loolu moo ñu dal ci aj màkka masalan aj màkka dañ lay wax ne la e, nang ko nang ko man àttan ko nang ko àttan ci jëmm nang ko àttan ci mental nang ko àttan ci économie loolu moom lañ wax ci aj màkka mooy sa jëmm ji mën naa def liggéey ba sa xel mi mat na ba mën nga jaamu def jaamu yàlla gi waaye am nga alal jiñ koy defee saa yuñ demee ba charte yooyu dajee su boobaa aj màkka war na la waaye soo seetee ci suñ culture yi dem nañu ba léegoo-léeg nga gis koo xam ne aj màkka war na ko mu ne déedéet moom fi ne ni xaleel la waaw moom aj màkka waragu ko xaleel la te loolu doo dem mukk ci islamic jurisprudence ci fiqh nga fekk fa conditionu ne eh, eh, xale nga doo dem màkka muskalaf moo xam ne julli war na la yaa ngi julli ah, or war na la yaa ngi or nga ne xale nga doo dem màkka loolu moom nekkul ci lislaam boobu culture moo ñu ko indil waaw wala suma yaay demagul wala suma papa demagul loolu culture moo ñu ko indil waaye du diine ah, du diine ndax da ngay wax ne suma yaay su sa yaay nekkoon koo xam ne tey eh, dafa tële ba mënta taxaw di julli moom tëdd di julli la man wala toog di julli xanaa da ngay wax ne xaaral ma jullil suma yaay doo ko wax. su sa yaay amut alal jum génnee asaka ndax da ngay wax ne xaaral ma génneel su ma yaay asaka doo ko wax su sa yaay manta or ndax da ngay wax ma waaye ci aj màkka lu tax yow aj màkka war la ba nga am lépp nga ne yow warut la nga ne dangay jiital nit koo xam ne moom aj màkka warut ko mu warul loolu kolco moo ñu ko dugalal waaye nag bu leen ma misinterprète suñ demoon ba nga def ko aj ga wér na de su nit su ku fekkee aj war na ko man na ko am na paas demut mu jël lam waroon a paasee jox ko nit aj ga wér na de waaw waaye moom waa jii de su deexee te ajut lislaam dana ko bileem waaw l'islam dana ko sikk dana ko ne yow de demoon nga ba mën a aj charte yi dajee nañ ci yow nga yéex koo def ba tax nga dee te defuloo ko parce que jaamu yàlla dafa am lu ñuy tuddee euh, maanaam soo ñëwee ci ci usul euh, façon yi xam-xam la du ngeen ci bëri soxla lool waaye dañuy wax ne euh, dafa am lu ñuy tuddee waajib mu wassa wala ak waajib mu doyaq maanaam lu war teñ yaatal waxtu wa ak lu war teñ xatal waxtu wa soo ñëwee ci borom xam-xam yi dañoo werante ne waaw ndax aj màkka mu ngi bokk ci li war teñ waaj teñ yaatal waxtu wa wala li war teñ xatal waxtu wa man toujours damay andak ñi wax ne mu ngi bok ci li war teñ xatal waxtu wa li ko waral moy suñu borom subhanahu wa taala mo wax ne ila maghfirati min rabbikum loolu la suñu borom subhanahu wa taala wax wa sabiquna saabiquuna ulaika muqarrabun lu bax da ngay ga da ngay njëkkalante pour jitu ci nit ñi waaw legi su fekke ne aj ben yoon la la war ci sa dundu su boba sa bir dundu bobu foko fi dugal rek def nga farata bi loolu kenn du la ci bileem dëgg-dëgg def nga li la war waaye suñ demee ba nga man ko nga yéexal ko nag yàlla dogal sa bakkan fekkeeku ko islaam dana la yedd de kenn du la wax ne nag am nga bàkkaar déedéet parce que yéene nga pour aji waaye ci see kii da nga da nga ko taswif naan damay xaar ba déwén wala nangam naa yàlla dogal borom dee lislaam dana la bileem mu ngi mel ni tey ñu ne waxtu julli jot na ñaari waxtu amuloo benn ngant liñ séntu mooy da ngay jóg rek nga dem julli ji ko loolu lañ séntu ci moom waaye tey su fekkoon borom dafa wax ne comme que tusbaar daal mu ngi tàmbalee ci ñaari waxtu ba juróomi waxtu xaaral ma xaar dama sonn waaye xaaral ma xaar ba ñeenti waxtu wala xaaral ma xaar ba ñeenti waxtoo genn wàll ma julli saa yoo jullee kon julli nga ci biir waxtu wi amuloo benn problème ak ñun waaye su yàlla dogaloon nag ci diggante bi nga am fi ngant ba mënoo a julli su boobaa lislaam dana la bileem dana la yedd parce que amoon nga opportunité pour def julli ga te defuloo ko loolu mooy li dal ñi nga xam ne dañoo am paasi makka ba pare dem fayal ñeneen ñoo xam ne dañoo dem aji te ñoom amuñ ngant pour dem eh, dëgg-dëgg lislaam bëggeewu ko noonu Euh, yooyu nag ay bunt la yoo xam ne bunt yu yaatu la euh, li ñu bëgg a wane foofu rek mooy tobaski mii nga xam ne mu ngi jublu si itam buñ ko def kolco tobaski dafa am ay charte danañ ci ñëw incha allahu taala euh, waaye dem nañoo dem a dem ba dafa am ñuñ ko moomale jigéen ju am jëkkër ju ne moom génnee na ci boppam jëkkër daal moo war a jënd tabaski loolu du diine loolu du xam-xam kenn waxut loolu waaw su ko defé kon yoyu eh, ñu bayiko ko xel dañ ci dem dem ba nga xam sax even su fekkee da nga am sax lu upp ben ben jabar sax da nga am pour yow ben bi nga tubaski fi tubaski lool du wax du diiné wala nga gis ko amul amul dara mu wor ko jaral muy lepp bor bo xam man nako top ren ba dewen pour ndax mu meuna jënd tubaski te yobuko ko kenn ko ko ya ngi def lula la kenn aj màkka mi nga xam ne farata la sax santuñ la ko ci waxuma laa nag tobaski aj màkka farata la waaye waxuñ la ne amuloo loo fay eh, demee màkka nga ne xaaral ma dem lebi xaalis pour mën a dem màkka kenn santu la ko waaw lu tax nag ci farata santuñ la ko nga ñëw di ko def ci loo xam ne eh, àggul foofu su ko defee kon yooyu dinañ ko utal bunta boppam incha allahu taala ñu waxtaan ñu ngi may junj nag ne eh, waxtu bi nga xam ne moom lañ jagleel ñi war a dugg si ci programme bi moo xam dañuy woote di laaj wala ñuy comment Eh, ne nañ ma jot na ba tax na mën nañoo ubbi line bi eh, incha allah képp ku yàlla man loo mu dugg si eh, comme niñ leen ko waxee nag ñun dañoo bugg lu ñuy tuddee naq dul banna mooy li ñoo tuddee constructive criticism ñun moom lañ dee bugga maanaam duul na rek wax ji neex na wala nangamati nangam waaye e, kenn képp koo xam ne da nga ci gis loo xam ne sax du noonu wax ñu ko dimbale ñu nga wax ñu ko su ko defee loolu dana mën a gindi ñi nga xam ne e, ma dégg nañ suma njuumte boobu ndax bu ñu nuur ci njuumte loolu dimbale leen ma ci bu baax a baax a baax képp koo ci xam ne tam am na loo gis ne wax dëgg yàlla loo rafetlu aayul ndax itam liñ ci rafetlu Euh, dafay dafay dafay dalal xeli waxkat bi tey itam daf koy daf koy sawarloo waaye itam euh, nekkuñ fi daal pour li nga wax lépp rek ñu naan noonu la noonu ku yàlla baaxee it ba mu demee noonu nga sant ko nag waaw waaye duhul daal suñ suñ suñ jubluwaay wala suñu bëgg-bëgg nga xam ne loolu rek a ñuy bégloo déedéet du noonu euh, kon bokk yi ñu bokk waajal jaamu yàlla goo nga xam ne mu ngi dëgmal si di julli tubaski moom itam Eh, suñu waxee julli tabaski rek mooy lañ cay rey moo tax eh, suñ jëmee ba di ci wax rek bunt boobu moo ñu ci gën a yitteel defe naa am na ku nekk ci line bi ñu may ko bisimilah. bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ousmane. ahlan wa namoon naa la di. waay waay waay Cheikh ñu ngi leen gën a namm incha allah. waaw waxtaan wi daal wax dëgg yàlla ñu ngi koy topp alhamdulilah ñu ngi koy rafet lu ci bu baax a baax a baax a baax a baax jërëjëf Mbow ndax waxtaan wi wax dëgg yàlla seen ko si xam-xam te leer na itam alhamdulilah man toujours dama dee wax rek ñu ma dee naqari si suñu waxtaan yi rek waaw boo dina dafa bëri ñu ko war di déglu ñoo xam ne duñ ko déglu ndeysaan billaay ndax si Ousmane da nga mujjee wax loo xam ne lu ama am solo la dem nañ ba suñu society bi tey soo amee alal war a mën a dem màkka sa bàyyi nekk fi amut lu mën a demee hmm. sa yaay nekk fi amut lu a demee yow soo demee boo ñëwee ñu xas la seetal loolu waaw boo demee boo ñëwee ñu xase ndax dañuy wax ne jigéen bu nuy seede amul yar moom mu ngi nii bàyyam ajeegut moom mu ngi aji yaayam mu ngi ajeegut moom mu ngi aji waaw te ñoom ñoom ñoom xamuñ ne liñ doon manistafaa ah. wallaahi dafa wàccoon bàyyi ji ndéegi ndax bàyyi yaay ji amul waaye yow yow la baaxee na la ba nga am wallaahi wax dëgg boo demoon ñëw na dellu fexe nag. ba ah. amaat beneen paas jox ko yaay wala jox ko baay. dafa gën a baax. ahankay. Ah, ndax nit ñi ñoom wàcc beneen waaye yow mu ngi la war. mu mel ni comme boo leen ko joxoon ñoom ñu dem def nga lu rafet ba tey si beneen ci wàllu aada waaye nag ci wàllu diine comme ni nga ko waxee. mën na am sax moom mu am duma.